ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi may lim ñu nekk ci ginnaaw société yi ñu nekk ci ginnaaw suufu Sénégal gi dagg ko jaxat-jaxatee ko def fa seeni ay turu société utal ko ay tur yeneen tur yoo xam ne mu ngi mel ñu jël sama tur def ko ca ak yeneen ci ay carte bancaire yoo xam ne ay autorité ñoo ko doon def ci ay turu doomu aadama yoo xam ne su ma tuddoon seen tur doo leen leen xam mais kiy nekk ci ginnaawam dina bokk ci ku ñu xam mu nekk ay autorité yoo xam ne fas yéene nañ leen a yoole donc ginnaaw bi ñu leen waxee ci Baccy Pro SAR bu seex Wagué ak fii fi nga xam ne nii moom moo di ci voor yi nga xam ne moom moo ci voor bi nga xam ne moom moo nekk ci biir aéroport international Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne moom moo nekkoon aéroport bu njëkk bi fii ci Yoff ñu dikka ci a Adama Adama Faye rakk ci Marème fay sàll wala mag ci Marème fay Sall di goro ci ci Macky Sall ak li mu occupé ci ay mètre carré ci ci ci côté boobu ñu ñëwal leen ci Madiambal Diagne mi nga xam ne nee na dafa fëgg dënnam ne amul dara dara loo xam ne nii ci suuf la lu ko gouvernement bi mën a topp tuddal nañ leen turam ak li mu am ci ay mètre carré fële nga xam ne moom moo ca géejawaay fi ñuy wax littoral bi ak ni ko askanu Sénégal askanu géejawaay yàggee jooy ñu yàgg koo wane journal seeni ay société moo nekk ci ginnaaw mais aussi ñëw nañ ci Mor Gueye Petrodis bi nga xam ne aussi moom moo moom Go Group di beneen société mais itam ñëw nañ leen ci beneen société boo xam ne day yëngu ci wàllum immobilier maanaam suuf ak euh, jënd ak tabax ak jaay ak luwe ci lay yëngu di société boo xam ne kii nga xam ne moom moo di Alioune Sall moom moo ko moom ñu koy wax SCI Masoka ñëwal nañ leen ci ak li ñu am ci waax yu wala littoral wala sax tefes bu géejawaay gi ak nañu daggee filaawo yi mais aussi wax nañ leen ci wakkaan terme sud bi nga xam ne nii militaires yi ñoom ñoo ko moomoon tey jii ñu raser ko toj tojee ko lépp lépp avant élection yi ngir gaawantu séddoo ko gouvernement bu Sénégal bu Bassirou Diomaye Faye daw leen doon xooli terme sud parce que dinañ leen fa demal après mais nag nañu leen dem biir aéroport dem jëli ab reportage beneen bu doy waar ci biir aéroport bi aéroport bi li ko wër aéroport bi ak li nga xam ne moom moo nekk ci alentour yi aéroport bi ak lépp loo xam ne nii rek lañ fa bàyyi woon la ci ginnaaw aéroport bi ci kanamu aéroport bi ak suuf si nga xam ne aéroport bi la woon donc euh, dañuy dem jëli reportage bi ñëwaat ci ay leeral parce que il faut ñu def ko ndànk-ndànk pour ngeen mën a am li ñuy wax nañu ko def ndànk-ndànk nañ dem jëli reportage bi wan leen aéroport bi reportage bi ñu fa def tey ñu ñëwaat ci explication yu leer ay ca ñu dem. aéroport bi comme ni nga ko gisee ah, aéroport lépp sera c' est bon Tabaco fi ñu gis ngeen li lépp di ay terrain ah, ñu ci tudd tamit yeneen tur yoo xam ni ay borom doole lan ci gouvernement président Sall ñu paat leen ko jox leen ko am na ku ñuy wax Mor Sarr bu ma juumul xam nga mooy kan ne xam naa Sénégal yi Mor Sarr Mor Sarr Sénégal yi xame nañu ak moom li ñu xamal mooy ay ndiraan la dugaloon fii doon ko. doon ko maasale ba ay nit fekk ko fi koo xam ne xam na ko fan yi ne génn na ndaraan yi ginnaaw décision président Diomaye lii lépp ngeen gis ko lii lépp ngeen gis ko mu nekk téere yoo xam ne ay baay am na ci ba pare yoo xam ne daanaka dañ koo pàcc wutal ko ay kéet mu nekk loo xam ne président war na cee jóg comme neen koy gisee ah lii lépp nekk téere yu nga xam ni daanaka dañ koo pàcc jox ko ñoo xam ne askan Sénégal moomewuñu ko fii amul benn Sénégal bu am fi tu ñëw naan da nga fiy tabax wala dara wala nga am fi kër sax wala dara dañ koy daaneel ndax dañ koo pàccoo def ko seen lu bopp léegi nag li ma gën a yéem ci mbir mi mooy dam fee benn nit moom fii la yor euh, entreprise am di benn mën bi benn mécanicien di fi liggéey nee na digganteem ak Mor Sare Mor na ko 4 à 5 fois ndax bërëb bi muy liggéey lañ ko fekk jaay ko doole bëgg ko fee jële mu lànk di du dem nee na def na 4 à 5 fois yoo xam ni def na ko kaso dina indi ay leeralam wax ko wante ak lu mën a am ci leer daay mooy li lépp ngeen di gis ancien aéroport Léopold Sédar Senghor daanaka ay téere kase la li ma koy waxee rek wax dëgg yàlla président de la république daa war a ñëw fii xool li fi am bu bëggee dellu askanu Sénégal seen moomeel ak li nga xam ni moom lañ liggéeyal seen bopp li nga xam seen suuf la a kenn ku nekk jël wàllam wa ilaa bu dee moomeelu état ñu jël koo def entreprise wala loo xam ni ndaw askan bi def mën di liggéey war naa ñëw xool ko moom président Diomaye Faye ndax AC aéroport bi daanaka ñaaw teef bi foo ko dàkkees nag dañ borne fépp ay tracteurs yu dul jeex yoo xam ne dañ doon ndax fii nag ñëpp xam nañ ka ni nga mën a def li nga xam ne moo di liggéey fii wala tabax faaw nga maasale mbir mi ndax dafa bari foo xam dafa am ay jóg-jóg ak xeet ak mbalit buñ fi sotti boo demee ne ci daanaka fépp dañ koo maasale def ko téere yu jekk yoo xam ni daanaka bu paree rek mën naan daal tabax ko wala nga jaay ko nekk loo xam ne booy ñaata bu baree bari boo xam ne nemmeeku nañ ko fii comme ni ma leen ko waxee voilà waaw li ko <laughs> sama waaw sama source yi dégg nga lan wax ñoom ñoo may jox information yi may wax gis nga nee li ko dalee fii ba source ya ba ba ba ba ba ba fële di euh, cimetière ba daanaka gars dañ ko pàcc ba ak piste ngeen seen ne piste nga xam ne fi avion yi doon jaar daanaka piste bi topp dagg lépp séddoo ko mu nekk ñaawte fu bëree bëri woo xam ne am na ci gouvernement dale ko ci ay immeuble dul jeex gis nañ yoo xam ni

ñaawteef yi foo ko dàkk wees na ko ah ñaawteef bi ñaaw na ba fa ñaaw yam nekk nag loo xam ne ñu ngi xaar bu baax a baax état bu Sénégal jël ci décision dina gën a leer ci émission bi nga xam ne seen jigéen Thioro Mandela moom la ñu di digtal noonu moom faram leen lépp mu leer nañ ñi te ñaawteef bëree bëri yi nga xam ne am na aéroport Léopold Sédar Senghor voilà mbokk internet yi ñoo ngi fii ci cité bi lu mu tuddati cité Tabago voilà jafe-jafe yu bare bëri am fi jëm ci suuf si ah. ay ñoo xam ni borom doole lañ séddoo ko yàlla def nag ñu ñëw fekk fi koo xam ni fi la doon liggéey daanaka ay at 12 ans boobaak léegi di mécanicien ah. sëñ bi tur bi naka la. Mbaye Thiam la tudd waaw Mbaye Thiam la tudd Mbaye Thiam tamit ñu jaay ko fi doole ju méttee métti di Sénégalais lambda di xuslu pour lu mu yóbbu ci njabootam mais lu mu dund métti na ay ñeenti yoon ñu yóbbu la ko kaso ndax bërëbu liggéeykaay bi nga nekk borom doole fekk leen da nga fiy loolu doone waar Mbaye Thiam d'abord sa diggante ak liggéey bi nga liggéey te di mécanicien fan la doore maa ngi doore jàng sama métier ba mu mokk mu ñëw fii sama mag moo dëkk ci kër gi jox ma barab bi ni ma demal nga defa di fa liggéey boobu daa nekk àll la woon ñu defar ko ba mu baax ñu ne fa di liggéey ñu fi nekkee di liggéey di liggéey ba benn moment ñu am euh, benn formation bu ñu état du Sénégal defaloon au niveau du DER DER jëm ñu yóbbu ñu Maroc ñu dafa ñoo benn formation bi defee formation bi ba am ay diplôme bi ñibbisee Sénégal mu daal ñu ngi léegi lan ngeen bëgg dañoo bëgg yéen ngeen nekk ay formateur léegi xale yi ngeen di jàngal métier dañ jàngal leen métier moo ko ñu dugal ci yenn maison yi pour ñu mën a dem liggéey maison mère ko loolu lu baax la léegi ñu commencé ci loolu état bi daal ñu leen dinaa boole ak DER mu jox leen xaalis ngeen dem mën a defar fi ngeen nekk ba mu baax ngeen mu fa liggéey léegi bi ñu defee loolu ñu topp ci fii dem ci euh, préfet préfet ni ma foofu mënut a am ay ay ay këyit ndaxte ay këri jàmbaloo yu ñu toj te loolu mi ngi contentieux ba tey pareegul amul bàyyi léegi li mën rek mooy ñu xool noo ko mën a jotee nga nefa di liggéey saa yu ko état bi soxlaa nga jóg man ko ba tey loolu mën na ne ñu ok d'accord biñ ñëwee ñu commencé di ko defar bu commencé di ko defar si la morsare ñëw suñu kaw ni ma fii bu yonga sonn mais moi ko moom man ko noo ko mooy mun am naa fi bàyyi man ko fii nga am bàyyi mun man ko amoo fi bàyyi ñu jàppante mu yóbbu ma gendarmerie. fii des ah, Mor Sarr moo ñëwal boppam wala dafa yónnee moom moo ñëw. dafa ñëwal boppam fii. fekk la fi yow fekk ma fi. ni ma am naa bàyyi. Mhm. ma ne ko amoo bàyyi mu ma am naa bàyyi. ñu xuloo ñu ma dem Descos mu ñëwee Descos gendarme daan ne ma am na bàyyi yow yow loo am ma ne ko am naa kii demande yi ma defoon wan ko kii yi ma def jox ko ko mun ma kii yi ay demande rek la man ko ay demande rek la mais fii foofu lañ tollagum. moom génn mën pas gendarme ni ma dafa génn fi am na fi nag ay baay da ngay sédde terrain man ko du ma ko sédde parce que fii baay amu fi mm-hmm. fii mënut a génne baay mm-hmm. parce que tamante gën a bàyyi ay këri jàmbur la woon. waaw seen i seen i borom fay état bi fayagu dédommage dédommagé gu leen. kon bu ko bëggee jox keneen ci kaw ñii mënta nekk. yéen wul maanaam wul maanaam te kër yi fi nekk nii nga xam ñoo fi nekk amuñu bàyyi. ginnaaw loolu. waaw ginnaaw loolu. ginnaaw loolu. ci lañ ci lañ ci ma jàppee ma ci kaso bi. def naa kaso presque quinze jours. ñu dem bagante ñëw bagante ñëw baagante ñëw bi ñu demee dellusi ñu téyewaat ma. mu daal ma da génn terrain bi. ma dem gendarme daal ni gendarme waaj amul amul bàyyi gendarme da génn yow mhm. yow moo xam ne waaye da génn ña fa nekk dinañ fa nekk waaye yow da ngay génn ko du ma génn nag mhm. mu ma da ngay génn parce que comme nga commencé riposte da ngay génn mhm. mun ko xanaa ko ñoo da ngeen fa am dara parce tax ngeen bëgg ni kii am na fii bàyyi te fii bàyyi mu ni fi kon di ngeen faa am mu naa ne ma ah man ngay wax loolu daal may jàpp ñu jàppaat ma ma defeere waat ma ma dem parquet amaat naa presque quatre cinq jours ba six jours aller retour aller retour bàyyiwaat ñu bàyyiwaat ma dellu si. quatrième fois bi bi mu ñëwee jàppaat ma ma demee waa ji ne ma am na bàyyi dem ci juge bi ne ko am na bàyyi ñu dem tribunal. Mhm. mu génn ay bàyyi teg ci kaw taabal. Mhm. gën a bàyyi tekki kaw table avocat yi ni ma bàyyi baaxul waaye ñoom il faut ñu dañ koy démontrer ni ñu koy mën démontrer ma dañuy bàyyi ñu dem ñu dem ñu atte leen après ñu mën a am kayit mën a def bàyyi looloo tax man ñu mën a am kayit. mais ko mhm. fii jël mille cinq cent mètres ko tëj ko def ko ay buntu tëj ko. Mhm. dàq ñu suñu béykat da ko séquestre gis nga li ngay gis nii dafa miire oto yëpp. dafa miire oto yëpp. d'accord suñu bagage yi presque un an et poussière. yëpp dañ ko miire ah. te mënut a liggéey Eh, miir bi toj na maa ko daaneel. parce que am ah, dafa am benn oto boo xam ne borom daf ma portoon plainte. Ah. mbuur. Ah. ma dem fa deux trois fois ma xam ne lii suñu continuer naa am problème looloo tax ma daaneel miir bi. ok pour génn oto jàmbur joxe ko parce que moom juge bi dafa nekk kayit. Mm-hmm. ne ko pour nu ubbi buntu bi mais dafa ne ma faalewu ma juge. Mm-hmm. faalewu ma tribunal. Mm-hmm. doo am dëgg sama kaw tey doo ko am suba. vocal na ma ko envoyé naa leen ko. léegi sa diggante ak Mor lan la yaa oto. sa diggante moom actuellement yéen a am ay wala wala bàyyi la na man ay message di ma menacé uh-huh. ma di ko wax ne man yàlla rek laa la la la laa yaakaar rek laa te yàlla rek laa ragalit it moom bu jaree bakkan uh-huh. na ko jël ma nopp mais bakkan moom duñ noonu loo xamante ni bi fii ci kaw suuf uh-huh. dee ko sax mooma gën a loolu parce que toog naa presque at ak lu toftal liggéeyu parce que bépp marché bi mu amoon perte naa ko bépp liggéeykat bu doon liggéeykat daw na ma liggéeytuma dara parce que boobu la tëj bunt bi fatt bunt bi man liggéeytuma ci biir ñee ñoom la bàyyi ñu liggéey ci biir ma nga doo fi liggéey man biti laa nekk benn bàyyi taxaw jërëjëf sëñ bi kon mu mel ni déglu ngeen li nga xam ne moom mooy reportage bi nga xam ne moom la def ci biir aéroport wala sax ancien aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne jamono jii suuf sa ay doomi senegaal yoo xam ne tekkiwuñu dara démb ak tey ay doomi senegaal yoo xam ne yéenewuñu seen askan ndam ak jàmm ay doomi senegaal yoo xam ne li ñu bëgg démb ak tey mooy seen askan yéeg ci seen kaw rek di leen noot ndax loolu la Mbaye Thiam yi dugg après di dinañ dugal mbay Thiam may leen ma tuuti rek ma ñëw dinañ dugal Mbaye Thiam ma tudd ay tur yoo xam ne mbay Thiam bu duggee dina ma confirmer moom Mor Sare ginnaaw gu dëgër la yoon Mor Sare mi ñuy wax ginnaaw gu dëgër dëgër la yor parce que moom Mor Sare moo moom entreprise bi ñuy wax Sare Technobac entreprise bi ñuy woowee Sare Technobac moom Mor Sare moom moo ko moom te ci turu entreprise boobu moom doomu Sénégal boobu